taan ak yéen ci lu gatt moy li xewon demb assemblée nationale jaaxal Sénégal yépp ndax dañu défé won né président Macky Sall bu bàyyee affaire troisième mandat vraiment stress bi dina ko waye dafa melni président mom ci stress lañu bëgg a ba février 2024 parce que président boo xamné yow da ngay dem février luy sa yoon ci vraiment ay tripatouillage de la constitution mom dañuy xaar lépp ci mom ba mu des di changer constitution ci kuy dem février kon ñu ngi féliciter vraiment député yi nga xamné demb amnañ taxaway nañ taxawaay bañ am muy député Benno Bokk Yakar, ak député euh, opposition ndax li wolof di wax mag du fecc yàlla naa dee ndax andi projet bo xamné la ca ne moy président sa yu ko nexé mu nangu seeni poste député té nga xamné ne ñu né buñ ko xassé ba jël euh, voilà amo benn garantie né da ngay ñëwaat la ca ëpp chance sax moy doto nek député kon ñom amoon nañ fulla ak fayda bu tollu ni ñu indil leen loo xam ne lii méngoowul ak seen intérêt waaye méngoolu aussi ak intérêt réew mi ndax dafa doon li ñu naan une réforme bu ko defoon bu jàlloon déconsolidante de la démocratie ma fàttali ne président Macky Sall ci boppam moo indi woon loi boo xam ne bii day tere kenn mën a tas assemblée nationale ci giiru ñaar at loolu mooy indi aussi stabilité ci réew waaye bu fekkee ne réew moo xam ne saa président bi yeewoo rek xool kanamu député yi neexu ko mu ne tas naa assemblée ba mo kon kon kañ lañuy ñuy liggéey kañ lañuy ñuy liggéey te loolu xaaruñu ko ci président de la république président li ñuy xaar ci moom tey suma naataango yi dinañ ci waxtaan mooy mu bàyyi ñëpp doon candidat mu fexe ba réew mi dal mu libérer aussi sunu détenu yi loolu dina ñu ci wax dinañ ci wax euh, plus en détail mais ci point bi nga xam ne moom laa waroon a waxtaanee vraiment dañuy aussi gën a kañ suñu député yi suñu député yi dans leur ensemble parce que assemblée nationale assemblée réunie, mi la ku fa tok ngay opposition wala ngay non inscrit wala ngay euh, euh, Benno Bokk yakar askan bala la yob kon toujours bàyyi leen xel ne vraiment intérêt askan wi ci ngeen wara dox nak président bo xam dans six mois mu paré monsieur le président de la république yow affaire troisième mandat jeexna na bayil mandat jamburi c'est pas parce que yow it amoo troisième mandat ga bëgg na nga mandat wu mandat député ñom ñoko mom voilà

voilà caxat caxatee te dans six mois ci lay dem li ñuy xaar ci moom mooy li ñu wax mooy vraiment mu dalal réew mi génne stress bi nga xam permanent bi mu bëgg a dugal réew mi loolu kenn mënu ko nangu kon ñu ngi félicité député yi ci walu woowu té lamu wara def mom xamna ko moy mu def ko problème yaa ngi fii bari bay bëgg dé voilà na 6 mois yi nga xam moko moo ci bop réew mi mu liggéey lam ca wara liggéey nanu ko waxé su ma naataangoo yi dinañ ñëw ci yenen point yi parce que amon nañ ñetti point ci suñu plateforme bu ko défé vraiment en février mu teg dossiers yi dem noppalu waaye affaire constitution article 87 ak xaw ma ban article kooku yoram newatu ci na bàyyi février kii ñëw ba juillet kenn mënta assemblée nationale bi euh, bu ko defee ñu xool aussi fan la ñu war euh, jëmee suñu démocratie waaye lii mu bëggoon a def euh, vraiment heureusement député yi am nañu fullaak fayda boo xam ne bii nanguwuñu ko ba moom mi ko indi won, da koo mujj retiré loolu li mu koy nak nag euh, da nak apam na ndax kuy bëgg a dem nak, ak ki nga xamné day lu pouvoir aussi ci politique euh, février inshallah, organiser élection yu jaar participer Sénégal continuer ci démocratie ñu ngi oui je voudrais euh, vraiment féliciter nos députés euh, pour leur attitude d'hier ils ont refusé euh, vraiment euh, ce projet de loi, qui était une loi scélérate. Parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. Les gens estimaient qu'il euh, il allait apaiser la situation après avoir déclaré qu'il ne serait pas candidat. Mais voilà, mes camarades ici reviendront sur les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur voilà, la sélectivité qu'il veut amener dans la participation qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne moi, mon adresse, euh, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Bernard Bokoyakar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a appréciée hier, c'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution, on l'a jamais vu, on l'a jamais vu nulle part. Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays, mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc je voudrais féliciter vraiment nos, députés et que désormais, ils aient cette attitude. Et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. Ça, ça s'adresse particulièrement aussi à mes anciens camarades de Bernard Bokuyakar. Vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur, c'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple, comme vous vous êtes concentré sur vos propres intérêts. Ben, comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé, c'est un petit grand papier, vous n'avez plus à avoir peur. En février, il va partir. Donc concentrez-vous sur les intérêts de la nation. Et Monsieur le Président de la République, nous voudrions vous dire, vraiment, apaiser ce pays, nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes, vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Oh, vous n'avez pas eu votre troisième mandat, vous n'aurez jamais dû l'avoir, vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, laissez leur, mandat. Voilà, votre mandat le président de la République. Beaucoup de Voilà, on reviendra à la normalité républicaine, qu'on retrouve notre sérénité, que chacun participe à la démocratie, participe aux élections, que nos jeunes soient libérés, je crois que ce sera détaillé, et que le Sénégal poursuive sa marche vers une démocratie consolidante, alors que le projet de loi qui était amené, en tout cas la modification de l'article 87, œuvrait dans le sens d'une déconsolidation de la démocratie. Et ça, il est heureux que nos députés ne l'aient pas accepté. Je vous remercie.